wasallama tasliman kathira mbokk yi li mooy cours numéro 19 di dellu jégalu nag ci pause bu yàgg bi yàlla ñu yàlla subhaanahu wa taala yokkal tawfiq yokkal ñu yombal suñu jàngandoo bi ñu jàngandoo téere bi di al usul al thalaatha ñu ngi ci yemoon di leeral li nga xamante ni lislaam terew ko mu dox diggante jullit bi ak ñi nga xam dañ jullit ndax dafa bokk ci gëm yàlla subhaanahu wa taala ak gëm yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullit bi daldi set wecc ci biir xolam du am benn mbëggeel mbëggeelu diine boo xamante ni dafay jàppante jàppale di taxawu ñi nga xamante ni dañoo wedd yàlla nekk ay noonu yàlla wala ñu nekk noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jalgati yoonam bàyyi yoonam ba ñu lislaam teree loolu dafa am yoo xamante ni lislaam may nañu ko bi ci njëkkoon muy obligation muy loo xamante ni dafa war ci kaw jullit ñi lu war a dox seen diggante ak yéeféer yi mooy ñu woo yéeféer yi ci lislaam ñu woo yéeféer yi ci ñu jaam jébbalu ci yàlla jaamu yàlla bañ ko bokkale kenn wala lenn loolu mooy première chose bi te loolu obligation la loolu dàqantewul ak mbañeel gi ñu am ci suñu xol mu jëm ci yéeféer yi naam mbañal googu dañ ciy jaamu yàlla dañoo bañ yéeféer yi ndax seen kéeféer ndax la ñuy weddi yàlla ndax lañ noonoog yàlla ndax la ñuy weddi yonent bi salaa salaam lañ ndax la ñu noonoog bi salaa salaam dañ leen a bañ ngir loolu waaye ànd ak loolu tamit obligation la ci ñun ñu daal di leen daawa woo leen ci ñu jëm ci lislaam duñu leen woo ñu dugg ci tariqa sàngam wala tariqa nàngam duñ leen woo ci groupe nàngam wala groupe bële dañ leen di woo ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah déggin ba ko yonent bi salaa salaam déggoon jàngalee ko noonu saxaaba yi déggoon ko noonu jàngal ñu ko noonu ndax ñiy wootu ci lislaam comme ni nga xamee bari nañu ñaareelu mbir mi mooy lislaam terewuñu bu fekkente ni yéeféer yi dañu ëpp doole te ñun ñu nekk situation bu feebal yéeféer yi lislaam terewuñu bu fekkee soxla nañu ko ñun jullit ñi ñu am ak ñoom ay traité ñu am ak ñoom ay accord yoo xamante ni du nekk pour toujours nag dafa am temps boo xamante ni ci lay durer te loolu ci jamono bi nga xamante ni jullit dañoo loof la amuñu doole la ndax bu jullit ñi nekkee ci doole am kàttan taxaw su boobaa li ñu séq ak yéefar mooy woo leen ci lislaam wante suñu nekkee ci situation de faiblesse suñu doole daa néew mënuñ leen lu bari lislaam tere terewuñu ñu am ak ñoom ay ay accord ay accord ñu am ay yu ñu signé loolu yàlla subhanahu wa taala may nañu ko en tant que jullit bu ñu xamee tamit loolu mooy ñetteelu mbir mi que ñun suñu néew doole jullit yi dañoo néew doole ba yéeféer yi mën nañ leen a noggatu mën nañ dal seen kaw lor leen gaañ leen lislaam may nañu su fekkente ni am nañu alal ñun te gis nañ ne yéeféer yi alal jooyu buñ leen ci joxee ñu daal di bàyyi ñu daal di ñu bàyyi tranquille du ñu dal suñu kaw du ñu lor alal jooju mën nañ koo jël utiliser ko daal di koy dépenser ngir mucc ci mboneel bi jóge ci yéeféer loolu tamit lislaam may nañu ko naka noonu it bu ñu gisee yéeféer yi di taxaw ay jullit def ci ñoom lu baax dimbale leen loolu lislaam dàqul ñu tam ñu dimbale leen yàlla subhaanahu wa taala terewuñu ñuy dimbalanteeg ñoom ci loo xamante ni lu baax la def nañ lu baax jëmale ko jullit ñi jullit ñi def njekk aussi jëmale ci ñoom ñeenteelu mbir ba mooy nit ko xam da am ay waajur yoo xam ay yéeféer lañu leeral nañu ci waxtaan bii passé di numéro 18 bi jiitu bi que l'islam dafa digal ki nga xamante ne ay waajuram ay yéeféer lañu mu def njekk jëmale ci ñoom am yarak teggin yërëm leen donte ay yéeféer lañu baax yaru am teggin ak ñoom juróomeelu mbir bi mooy lislaam may nañu ñun jullit ñi ak noonoo bi ñu yëg suñu biir xol mu jëm ci ñoom ndax kéeféer gi ñu nekk ñuy jënd ak jaayante ak ñoom commerce dox na suñu mën na dox suñu diggante ñuy jënd ci ñoom loo xamante ne ñun dañ koo soxla ñoom ñuy jënd ci ñun loo xam ne ñoom dañ koo soxla loolu tamit lislaam may nañu ko am na yu ñu soxla suñuy dëkk ay marchandise la ay arme la wala ay ay ay matériaux yoo xamante ni wala ay ay outils wala ay ay ay ay ay dañ ko soxla pour suñu usine ay oto lu bari daal loo xamante ni ñun am nañ ci soxla te mënuñu koo defar mën nañ koo jënd ci ñoom ñoom tamit am na yoo xamante ni soxla nañ ko ci ñun ñu jënd ko ci ñun ñu jënd ak jaay te loolu euh, lu lu xel nangu la yonent bi sallallahu alayhi daan na jënd ak jaay ak yéefar yi jëflante ak ñoom jëflante na ak ñoom ci wàllu jënd ak jaay naka noonu tamit ñu leen di leb walla ñu ñuy leb dox na mën dox suñu diggante loolu yëpp ci biir business la dox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leb na lii nga xam benn yahud leb na ci moom lekk bu mu dundalee waa këram mu daal di tayle li nga xamante ni moo nekkoon euh, armure de guerre ba mu daan yor benn bouclier bu mu yoroon. mu daal di koy tayle ci ci waa ndax lan pour waa ji mun ko jox lekk maanaam ay ci ay dugub wala ceeb demee noonu pepp daal boo xam ne ci dundal waa këram taam donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jënd na ci ki nga xamante ni yahud la donc lii nga xamante ni affaire àdduna la te mbëggeel doxu ci jënd ak jaay am coopération ay traité yu demee noonu loolu lislaam may nañu ko lislaam may nañu ko kon nañu def différence diggante lii nga xamante ni ay mbiru àdduna la nga xamante ni lislaam may nañu ko lislaam permettre nañu ko ak li nga xamante ni moom ngay dégg ñu naan la soo jëndee ak jaay wala nga am coopération wala nga signé ay traité ak yéefar yi loolu dafa woon da nga leen a bëgg déedéet loolu du du dalil du preuve que ne loolu mbëggil dafa dox si diggante bi déedéet kon yonent bi salaa salaam dañ koy jiiñ ko ne dafa bëggoon yahudi ndax jënd na ak jaay ak ñoom jënd na ci ñoom leb na ci moom leb na ci yahudi kon il faut ñuy différencier ñaar yi ni beneen mbir boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala may nañu ko ci lislaam mooy euh, góoru jullit ni am nañu permission takk ci jigéenu ahlul kitab ahlul kitaab mooy ñan mooy koo xamante ni juif la walla chrétien du tur nag kese nekkul rek kii ne Christine la tudd walla kële tudd na euh, Manuela mu ne chrétien la walla juif la waaye jàppul ci diineem dara dafay taxawaalu di farantu di ànd ak ay góor nekk dugg ci ñu ne kooku la déedéet yàlla subhaanahu wa même ci nga xam dañu ne ay jullit lañ sax ñi mu ne permettre ñi góor ki mu war a takk góor jullit ki mu war a takk même ci biir jullit ñi mooy koo xamante ni dafa afiifa maanaam dafa sàmm boppam sàmmoonteeg diineem kon li ñu permettre góoru jullit mu takk chrétien wala juif nekkul bunt bu ubbeeku rek kañ ñu permettre ñun jullit bu góor kañ ñu permettre ñu takk ko ci waa ahlul kitaab mooy juif ak chrétien kon kooku Euh, bouddhiste bokk ci athée bokk ci euh, keneen ak keneen hindu bokk ci juif wala chrétien la ñu wax waaye nag condition ba mooy mu mu nekku sàmm boppam nekkul kuy taxawalu amay far di taxawalu loolu kenn wax ko parce que ngay dégg gars yi dem Europe wala fen États-Unis euh, xëy na takk benn femme lan la ñu ne non parce que l'islam may nañu takk juif wala chrétien l'islam waxula loolu de l'islam dafa ne mën nañoo takk permission la du sax ndigal waaye permission la bu dee da ngaa war a takk ci ñoom juif wala chrétien dafay fa afiifa afiifa mooy koo xamante ni dafa sàmmonteeg diineem dafa sàmm boppam nekkul koo xam dañ koo xam ci ay farantu ànd ak i góor di di tëddee kii di tëdd kër ko ki ànd ak moom déedéet loolu il faut mu leer ci bopp jullit ñi le contraire ne pas possible n'est pas permis mooy góoru juif wala góoru chrétien góor bu dul jullit ak diine boo mënti bokk daganul ci yow ngay takk jigéenu jullit jigéenu jullit boo xamante ni gëm na yàlla gëm yonent bi gëm bés pénc sàmmoonteeg diineem ragal yàlla sàmm boppam yéeféer munu koo takk ñu moytandik aussi benn waay jóge fële xamanteek benn ku jigéen muy problème yi ñu am suñu société yi góor ña jigéen ñi fu ñu fekk dañu gisee mu mu yomb loolu ñuy waxtaan et cetera ba ay relation di dox seen diggante xëy benn yéeféer ñëw taxaw ne damaa bëgg a takk seen doom ñu ne ko ah boo nekkul jullit doo doo mënuñ la koo may mu ne walla damay nekk jullit pour takk ko bu ngeen kooku nekkul jullit parce que dafay jaamu dafa bëgg a yàlla dafa nekk jullit pour takk ndaw si loolu problème bu réy la problème bu rëy la nit ki dafay nekk jullit nangoo jaamu yàlla bëgg dugg ci diine yàlla ji ngir yàlla ngir jaamu yàlla jébbalu ci yàlla subhaanahu wa taala nara jaamu yàlla condition boobu buñ ko amee mooy kon kooku jullit la mu daal di ñëw ñu dog koo may jigéenu jullit boo xamante ni jullit la kon nañ bàyyi ci loolu xel bu baax a baax beneen mbir boo xamante ni lislaam terewu ko mooy ba fekk dañu am dëkkandoo yéefér dëkkandoo yéefér lañ am lislaam terewuñu ñuy joxante ay lekk ñuy invitante ci loo xamante ni dagan na ci loo xamante ni dagan bu sa voisin ki nga dëkkal sa dëkkandoo la yéeféer la togg na ceebu jën wala mu togg suluxu wala mu togg kaldu daal la ci tibbal wala mu togg ceebu ginaar tibbal la ci su boobaa yoo dagan na nga lekk ci juif la wala chrétien la waxuñu la ceddo benn ceddo bu nekk foofu ci koñ bi ñu ne Baay Faal la Baay Faal la mu daal di jënd benn xar wala ginaar rendi ko nga gis ko moom moo ko rendi mu tibbal la ci yow lekk boobu daf laa xaram parce que loolu mu rendi kooku Baay Faal boobu dafa xaram waaye ki nga xamante ni chrétien la wala juif la ngeen dëkkandoo nga gis ko mu rendi ginaar déggoo ko mu wax au nom de Jésus wala déggoo ko mu wax au nom de Uzair déggoo ko mu wax leen loo xam dafay xaraamal yàpp boobu noonu kooku su la joxee mën ngaa lekk wuuteeg kee nee nekk Baay kooku su rendee jox la boo lekkee lekku médd nga lekk lekk nga lu xaraam parce que ki ko rey du jullit du jullit du du juif du chrétien naka noonu it ñu bàyyi xel bu baax a baax ay manifestation yi nga xamante ay manifestation diine yu am Sénégal la muy appel laayeen yeeg li nga xamante ni moom mooy euh, màggal geeg yenn gàmmu yeeg yenn ziyaara yeeg lañ fay rendi bu fekkente ni lañ ca jublu mooy màggal borom bés ba màggal borom bés ba loolu ñuy lekk noonu lépp lañ fa rend yëpp daganul dem fa yow pour nga dem fa déjà daganul ci yow waaye bu ñu rendee nga lekk ko lekk nga médd lekk nga loo xam dañ ko rendil keneen ku dul allahu subhanahu wa taala ñu bàyyi ci bu baax xel donc boo amee dëkkandoo mu nekk yéeféer indil na la lekk mën nga cee lekk bu fekkee ni dafa am lekk dafa taxaloog benn feet nag feet ci feetu yéeféer yi su boobaa yow danga nga ciy gàntañ lu koy doo ko lekk yow tamit am nga droit tibbal leen jox leen loolu yëpp mën naa dox mën ngeen joxante ay kado mu ngeen joxante ay kado ci loo xamante ni du lu bés bu xaraam maanaam ci seeni bésu feet ñoom lu mel ni nowel wala Pentecôte wala Pâques ngeen di joxante ay cadeau ci feet gi moo tax loolu daganul loolu daganul yow tabaski bu amee mën nga leen may ci yàpp bi ndax yow sa sa sa sa tabaski dëgg la yàlla moo ko dëgg la ci yoon la tegu ci diine la tegu yàlla moo ko digle yow donc mën ngaa jël sa yàpp bi jox leen korite it boo toggee say ganaar boo ko njoñee ba mu baax mën nga leen cee jox loolu du problème waaye ñoom bu Noël ñëwee ñu tibbal la amuloo droit lekk ci ndax lekk ga ñu defar célébrer Noël moo tax te yow Noël da nga koo weddi fekkee weddi woo ko woon na nga jóg ci weddi ko ndax li ñu gëm ci nowel mooy dañu célébrer dañu féete juddu kañu tëdd doomu yàlla te yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad saaga bi gën bi ñu saaga borom bi subhanahu bokk na ci mooy ñuy askanale borom bi subhanahu wa dafa am doom beneen mbir euh, boo xamante ne lislaam daf ñu koo tere ñun jullit mooy ñuy lor walla ñuy tooñ wala ñuy def acte d'injustice bu jëm ci ñi nga xamante ni ay yéefar lañu parce que ay yéefar lañu allahu subhanahu wa taala daf ñoo jox ndigal ci alquran suratul maida ay numéro it mu ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an laa taadilu idilu huwa aqrabu littaqwa mbañeel bu ngeen am mu jëm ci benn xeet ci ay nit bu mu leen yóbbee mukk ngeen bañ a am justice am eh, sax am maandu te jëm ci ñoom maandu leen idilu bu ngeen di jëflante ñoom na ngeen jëflante ñoom ci loo xam lu jub la lu maandu la amul injustice amul tooñ bu ci dugg huwa aqrabu lit waa loolu de moo gën a jege ragal yàlla kon toog rek ni diw ay yéefar lañu loolu joxu la droit yow jullit bi nga daal di leen rey wala nga leen di lot wala nga ni tooñ wala ngay foqati seen alal abadan lislaam xamul loolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daawul tooñ diglewul tooñ yàlla subhaanahu wa taala dafa ne ci benn xadis mu ne yéen doomu aadama yi dama xaraamal lii nga xamante ni moom mooy zulm di tooñ tooñ dam ko aramal ci sama bopp man yàlla subhanahu wa taala def naa ko mu xaraam ci seen diggante yéen inni xaramtu zulm ala nafsi yàlla subhanahu wa taala kon ku bañ lii nga xamante ni injustice la ak tooñ da koo bañ kon jullit bi gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam di góor di topp yàlla yonentam du tooñ du tooñ jullit ñi du tooñ ñu dul jullit ñi da ngay gis ñenn ñi nekk ci dëkk yi muy dëkk jullit ñi wala ci biir yeneen dëkk yi dañu dem rey benn yéefér parce que yéefér la ñu ne la balaa yéefér la déedéet lislaam sant la loolu lislaam sant loolu kenn bokk na ci li ñuy yàqee deru lislaam ci àdduna bi mooy ay idiot ay dof yoo xamante ni ah teguñu li ñu def fenn ci benn xam-xam seytaane nax leen ba ñu yaakaar li ñu def ci tur din lañ tur din lañ koy defee dem di rey ay nit ci mbedd ñoo xam defuñu leen dara comme li xew fan yii France nit euh, président France ak ñenn ci France saaga nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay nit xëy daal di dem fekk ay nit ñu nekk ci mbedd wala ñu dugg seen église nga fekk leen fa jam leen paaka rey leen ñu ne voilà dañu def ci loolu yëpp lislaam xamu ko lislaam dafa tere tooñ lislaam dafa tere tooñ borom bi subhaanahu wa loolu la ñuy wax suratul maida mu ne mbañeel gu ngeen am mu jëm ci benn xeet ci ay nit bu leen yóbbee ngeen def loo xamante ni maanduwul c'est pas juste soyez juste na ngeen maandu maanaam moytu leen di tooñ ndax loolu moom moo gën a jege lii nga xamante ni ah, ah ragal yàlla la euh, léegi benn point bu bu am solo bu ñu bëgg a discuter mooy lan la lislaam wax ci jullit ñi nga xamante ni dem nañu dëkki ci dëkku yéeféer yi ñu bàyyi loolu incha allah ba waxtaan bii di ñëw hada wallahu aalamu sal allahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin